yéenekaay yi ak El Hadji Ahmed Aïdara xaalis bi ñu dugal ci wàllu njàng meeg njàngale mi di école bi bari na waaye dara le populaire ne ñetti junni ak juróomi téeméer ci ay milliards def nañ ko kon ci wàllum l'école woowee wàllu njàng meeg njàngale mi waaye résultat furaas kon daal di xideen le soleil yéene kaay ne la ñu def ci wàllu njàng mee njàngale moo mais ci fukki at yow ëpp na kon ñetti junni ci ay milliards la ilaha illallah ca jamono dañuy waxtaane kon wàllu njàng meeg njàngale ma ah askan waa nga ca ba léegi ni lee maanaam organiser woon nañ ko ay punkol organiser ko ne dañoo bëgg kon la ñuy dajale yëpp ñu yëkkati ko kon jox ko ne ñoo loru ca mbënd moo mais grand théâtre lañ ko doon xam ne maanaam nag moom lañ fa dajale day am na lëndëm lëndëm de am na loo xam ne jaaxal na nit ne de maarte taali la ilaha illallah ma ne ana xaalis ba am na lëndëm lëndëm laa wax parce que nag ki nga xam ne maanaam moom mooy DJ Boubs waaw TFM gee la toog ñëpp di ko seetaan mu ne xaalis bi fi mu nekk nii mat na téeméeri million ak fukk ak ñaar te boobu soirée bi kon commencé gul bi fukki waxtu ak benn kon di dem bay teg ñaar fukki minutes ak juróom ci guddi gi vingt-trois boobu soirée bi commencé waaw ci la bub su xamle carrément ne li ñuy yorogu mat na téeméer ak fukk ak ñaar ci ay millions cent douze millions la ilaha illallah te laataa loolu Youssou Ndour xamle woon na ne téeméer ak juróom fukk ci ay millions laa bëgg cent cinquante millions yéene kaay gi ah, ko gaayeen ñu jot Toyota am ci xaalis juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar ci ay millions la 97 millions Omar Pène yemu ca demaat ca Grand Théâtre gae jàkkaarloo fa kon ak journaliste ya xam le ne li ñu jot a dajale daal juróom-ñeen fukk ak ñaar ci ay millions la 92 te Omar Pène boobee fekk na ca RFM gae mu ne 97 kon la ñu am mu waay waaye ñu ñëw ba démb xaalis bi nga xam ne maanaam moom la ñu jébbal kilifa yi ñoom ñoo ñee ak seen soirée ba ca Grand Théâtre juróom-ñaar fukk ci ay millions kese fekk na DJ Boubs xam le carrément ne fukk ak ak ñaar ci ay millions la ñu am Omar Pène xamlewaat ne juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar 97 millions la ñu am Omar Pène demaat ba ci yàgg ne juróom-ñeen fukk ak ñaar 92 millions la ñu am waaye yow ñuy dem ci kilifa i di leen jébbale xaalis ba yóbbul leen juróom-ñaar fukk ci ay millions 70 millions <laughs> la ilaha illallah laas Charles Faye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum communication jokkoo ca ministère culture ba ñu ko laajee dane téeméer ak fukk ak ñaar cent yoo jee nga xam ne moom la dijë bub su wax ay nit a doon digge rek Salam Diallo mi nga xam ne bokkoon na ca organisation googee nee na ñi nga xam ne nag maanaam dañoo danañu joxe te joxewuñ boo sàgganee dana sulli seen tur moom Salam Diallo mu yéen wax waxet Macky waxet siñor l'officier ne kay ne gouvernement wër de parce que am na ci yenn ci ay ministre yoo xam ni boo sàgganee danañu changé de ah waaw waaw lu ci mel ni Benoît Sambou robb ba nga xam ni kon moom lañ ko ñëwal daa rëy wàllu mbay mi moo tax dàq ñu kon kii di Robert Sagna dellu soit fa Penda Mbow danañu yëkkati kon culture ca Youssou Ndour jox ko ko Youssou Ndour dese tourisme kese Assane Diagne ministre woon boo sàgganee dana dellu soit de ah waaw waaw xam ngeen ne Assane Diagne moo mee nekkoon na fi ministre ko réglé même nom Assane Diagne kese moo ñemee taxaw ni ko laam-laamee ni kon mën naa remplacer maître Alioune Badara Cissé ca ministère affaires étrangères maître Alioune Badara Cissé moo mais remplacer ji kon Aminata Touré ca ministère de la justice Abdoulaye Diop ñu koy tudd moo fi yoroon wàllum koom-koom ci jamonoy Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo mais dana plainte kon kii di Abdoul i plainte Aminata Tall mu yow plainte Aminata Touré i plainte Abou Abel Thiam ya plainte kon Mansour Tall mi secrétaire général du justice ubbil ah, yoo xam ne dañ koo teg ci ko fenn maanaam sàcc oto ya sàcc kon ay œuvre d'art tableau yeeg yu ni mel sàcc meuble yu kon ca pale ba sàcc tapis yi nekkoon ca pale ba détournement d'argent sàcc xaalis caxat-caxatee kon alalu askan wi joxe ay terrain ba ci alal joo xam ni kon daalewul tey plainte ba libération yéene kay ne plainte plainte ngi nii mooy Sénégal la doon plainte kon Karim Wade ak Sengeli Wade ca France ke waaye mbir ma kon daa mujj mooy ñi naru la mooy le kay moo ñu Yaya Jammeh kon a rey ca Gambie laa ilaha illallah tribune yéene kay ne Yaya Jammeh day ko ah juum nga de parce que bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo fi nekkoon ministre communication am waaw nee na kilifay nekk ci Sénégal gii bu ñu gaawulee yëngu Abdourahmane Baldé sénégalais la waa Tambacounda waaw boo sàgg ne Yaya Jammeh dana ko rey de marte itali laa ilaha illallah dana ko rey te am na ci ay sénégalais yu bëree bëri yoo xam ni kon seen bakkan man ca xottu gerte ca duwaanu Gambie gée la Soleil yéen kay dikk ak ñin ci diggante Sénégal ak Gambie sulli ci tamit ay mboot di ay révélation birima ci tribune yéen kay ne Amérique am na fa ay sénégalais yoo xam ne tam ñu ngi xaar seenug de xanaa xamoo ne Yaya Jammeh daa muusul rek ci ñu ngi ko defee nii waaye Amérique gee tamit ay sénégalais ñu fa toog di xaar kon seenug dee Macky Sall daal fi nekk nii la ma war a def mooy na mu taxawee ci coowal Gambie gii noonu la war a wanewaat kon ca Amérique gee waaw waaw parce que ñu bëree bëri kon ñu ngi naqarloo États-Unis gee nañuy àttee kon ca tribunal ya bu ko Macky Sall defulee daal danañu continuer di ko woowee wax waxeeg junior le populaire ne Ousmane Tanor Dieng Seck day dàq nañ ko parti socialiste oh musiba musiba ka ca autoroute ba la xew ak waa ji xam ne kon dañ koo jam mu jaare fa kon ñàkk ba kanam tribune yéene kaay ne Idrissa lay wuyoo moo ni moom day laataa ñuy tabaski nii la waroon a kon jël soxna allahu akbar waa ji Sonatel la doon liggéeye mbaa xam dong moo ko yóbbee lii lépp te agressé da mbay mujj naa daw dem dem naa ca lambu ja Walf Grand Place ne Balla Gaye 2 day la ñu ko doon tuumaal daal mooy dóoraate ma nga woon ba démb laas ne Balla Gaye numéro 2 1 moo doon star bi démb de <laughs> star dëgg sax ca tribunal ba démb waaw waaw ca audience ba Gris doo ci la populaire tamit li jënti na soxlaam bu baax a baax Gris doo ci suñu làmb ne képp koo xam ne yaakaar nga ne faas yow la bu dul yow du dox juum nga yaa ngi nax sa bopp laa wax Gris Bordeaux ci laas dama ne man kenn mënu mënuma déstabiliser laa la wax cay tigre de faas ba yemu ca ci tribune yéen kaay nee na faas man la faas man la man mii la faas man la man Gris barke rasuulaay ah maa la wax li <laughs> alaaji ku moom wax ji le te xam nga ne man Gris Bordeaux ay mbiram dama cee mënul yàgg alaaji loxo ba gaaw na ñor na kaar macha allah loxo ba jot na saf na